fan la relation per Bécaye ak ni tollu jamono jii nii. sama xarit sama xarit sama xarit nit ku baax nit koo xamante ne ni vraiment ah man ak moom danoo yàgg duma ko fàtte daal sama xarit la waaw. ñu ngi déggante ba léegi bu baax a baax. du toog semaine te déggante waaw foofu laa ci mën a yem ndax wax bi boobu moom jeex na parce que nit ñi duñu doyal nan doyal. mais nit ñi daal duñu doyal ñoom daal ñoom daal mën daal nit ñi jaaxal na sama xarit la bëñ ak làmmiñam dëkk te dañuy jotee yow ñaata nit nga cookeel yow bàyyi nga leen <laughs> waaye yow doo ma bàyyi <laughs> man <laughs> bàyyi leen ma waay. Eh, lay bàyyi nga tàggatoo ak te li ma ci naqari kenn du jàkkaarloog moom ba laaj ko ko quoi man rek lan ñeme. ni ko ragale yaakaar na ni da leen di dóor te pourtant xoolal du xeexul xuloowul <laughs> xeexul xuloowul loolu daf leen a napp dafa sévère ni leen nii quoi ngeen ragal ko man ngeen ñime <laughs> sama xarit dañ lay bàyyi nga nuyoo maa ngi koy ñaanal fan gudd di ko ñaanal wér li nekk ci kanamam yàlla taxawu ko taxawu jabootam waaw. ñu la nga tàggatoo ak internet. tàggatoo gi kay mooy waa Sénégal set Euh, ñëpp maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di leen encouragé ngeen gën a dem ci kanam ok merci beaucoup père